Sooy tàmbali il faut mu metti kota tàllal loxo mu bañ il faut nga jàpp nga bëgg du dañ I need you bari ni doo fi tekki li ñu wax mën a dañ ci kaw nga jàpp gëm sa bopp dem man nga fexe ba jëndal sa yaay oto lu xew nga def ci sa loxo lu papa laaj nga jox ko sa métti tu xarit nga faj ko borom nay ju bonsoir chers amis internautes de Sénédiaspora TV très très heureux de vous retrouver encore mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant di leen jox seen way comme ni ma ko waxee di rafetlu ànd bi ak suñuy programme Euh di leen wax nak dal leen ak jàmm ci numéro bu bees ci émission waar wi waar wi comme ni ngeen ko xamé comme son nom l'indique képp kuy yëngu ci secteur informel ak fépp fo mëna a ci Sénégal ñu dañuy déplacer wu dem séti la yéen doog yow laaj la nan nga duggé ci métier bi ak euh, lépp lu ko ëmb Tay nak ñu ngi ñëw fi ci Tivaouane Diack Thiaw seet si benn ndaw bu tudd Demba Mom nak ci ci coiffure lay yëngu salon de coiffure da yor la yor day wat bu góor euh, tey nag moom lañ seet si duma def lu dul ànd ak sama caméraman ñu dugg fii salon mu ngi nii seeti Demba euh, ci émission waar wi ci Sénédiaspora TV. voilà mbokk internet yi comme ni ma ko waxee ñu ngi fii ci salon wu Demba tey moom lañ seet yi ci numéro bu bu émission waar wi moom nag euh, ndaw la bu yëngu ci wàllum wat comme ni ngeen ko gisee ñu fekk ko mu nekk ci waar yi loo xam ne ça fait plus de 18 ans mu ngi ci loolu du lu du benn fan du ñaari fan euh, sëñ Demba ñu ngi lay nuyu. waaw fay naa leen maaleykum salaam Pathé maa ngi lay fay bu bëree bëri di la ziar di la bëggee di bëggee waa Zene Diapsara macha allah macha allah tey yow lañ seet yi ci émission waar wi ñu nar a am ak yow waxtaan bu yaatoo yaatu ci nan nga duggee ci métier bi et cetera et cetera euh, li ma lay njëkk laaj mooy euh, ban année d'abord nga dugg ci métier coiffure waa waaw bi maa ngi ci dugg 2004 2004 laa ci dugg sama benn euh, tante moom ma boole Tidiane Tidiane mooy post Thiaroye la dëkk étoile coiffure waaw maa ngi koy nuyu moom. su boobu ma ne la moo ma jàngal métier bi moo ma jàngal lépp sax ci wàllu wot moom moo ma ko jàngal métier bi mu ñëw moo nekk ku ko bëgg tamit waaw xam nga nit ki tamit booy jàng mbir bëgg ko waaw mm, yàlla mun na la ci defal sutura waaw Euh, bi nga ci bi nga ci bi ciy dugg tout d'abord nan nga ci duggee maanaam bokk nan nga nan nga nan nga nan nga regrouper les moyens parce que doon ndaw tamit bi nga koy wax comme en 2004 loolu yaakaar naa ne ndaw nga woon euh, bi nga ciy dugg jafe woon na tamit. waaw bi ma ciy dugg jafe woon na jafe woon na trop parce que maman yooyu tamit affaire bi dëgër na dëgër boo xam ne gis naa métier bi gis naa ne su ma ci duggee ak ni ma ko bëggee mun na nekk du yàgg ma mun maa fajal samay soxla. non la ci duggee yalla bolé ma nit ku bax tamit patron sama patron Tidiane mom tamit mu yaatal ma ubil ma xolam vraiment janggal nek janggal nek jangal bu gaaw jangal mako jangal bu gaaw ma gaaw ci gis sama bopp macha allah boobu ba légui ma ngi ci jeriñu wa bop ba légui ma ngi ci sante bu baax baax alhamdulilah. Hmm. Euh, euh, métier coiffure euh, metti na wala metti wa yombul mom yombul yombul. métier moom soo ma ne la bu yomb amul xanaa métier sàcc sax dafa metti sàcc dafa metti parce que léeg-léeg mun nga cóolle waaw surtout nag métier boo xam ne danga koy def sa bopp def ko sa xel waaw di ci boole yu bëri ak nga di gis façon nit ku ne waaw di gis façon nit ku ne kon nag loolu mënul yomb léeg-léeg da ngay wat nit ki mu saboote tuuti léeg-léeg nga wat nit ki mu jàll surtout boo koy jàng avant nga koy mën day metti day metti di nga dégg lu ne gis lu ne wa parce que di nga dajeeg façon client bu né di nga dajeeg tamit ño xamné dañ lay comprendre wa buñ la comprendre mom mën na baña metti mais amna ño xamné duñu xol du wa xool moy problème bi motax mënul met mënul yomb quoi ah yomb. ok biñ ci biñ ci ciy door a démarrer ñàkkul woon amna benn bés bo xamné peut-être euh lén lo xamné doto ko faté ci biir métier bi kenn ko mës wat wat bi nga wat neexul ak waxuma waxuma actuellement parce que actuellement am nga ci expérience bo xamné ne gëmma ni loolu dina la dal mais bi ngay dooro door. waaw amon na amon amon na amon na. amoon na di nga wat looy doog a looy doog a door mën a goo ko en tant que wat nga xam ne bopp nit ñëw ci yow pour na ko defar nga yàqal ko ko <laughs> yàlla bu fekk dafa am céet bu mu war a dem wala xaw nga war a ngénte bu mu war a dem wala war a seeti soxna si weekend affaire bi day tar benn instant quoi boo ko yàqee rek erreur bu mag lay doon waaw du ñàkk moom du ñàkk du ñàkk mais nag ñu ngi sant instant yi waa ñu ngi sant bu baax a baax a baax waa parce que ñu ngi koy bàyyi xel bu baax ñu ngi ciy def suñu xel waaw te ba pare ma wax la benn affaire ci métier bi nag métier bu naqaree mokkal la neexul mokkal de waaw mën nga gis nit def ci lu ne yàgg ci façon yàgg bu ne mais lu jafe mokkal la waaw lu jafe mokkal la moo tax ma ne waaw képp ku ci nekk daal dolli cee eh, la bu baax a baax a baax lu ci bu baax après tamit ngay bàyyi xel bu baax parce que yombul daal yombul yombul yombul. mais sant quoi sant. macha allah euh, euh, say client nan ngay nan ngay dundee ak ñoom. waa client roi la. client moom roi la. client moom nu mu ñëwee rek nekk ceeg moom jox ko cër ji mu moom parce que yow yaa toog ñoom ñuy jóge fu ne di ñëw di la indil seen xaalis kon nag ñooñu amoo seen fay say roi la ñu. waa foog nga jox leen cër respecté leen li ñu bëgg nga defal leen ko. waa loolu mooy affaire bi te koo wat benn yoon tamit baaxul. mooy loolu du ñëwaat de non du ñëwaat. sa cër bi waa respecte affaire bi bëgg ko di teg ci temps di ko teg ci temps di ko jox li mu moom waa loolu mooy affaire yi daal affaire métier bi daal loolu la laaj rek. Mhm, loolu moom secret bi ci la bokk bëri na ay secret nag mais loolu moom ci la bokk. service yi ngay def fii nii à part euh, wat bi nii euh, yan service nga fi amar yaakaar naa ni bokk nga ci salon yoo xam dañuy tent wala dañuy def à froid wala dañuy wéef yooyu noonu. waaw damay tent. damay tent damay tent damay def afroa wéef waaw wéef bi mooy afroa bi rek parce que booy wéef balaa ngaa balaa ngaa kii foog nga afroa ba pare waaw wéef bi mooy afroa bi da ngay wéef damay wéef damay tent damay réparer tëndës tamit nga xam ne loolu bokkut ak kii wat bi en même temps damay jaay tëndës waaw damay jaay tëndës damay réparer mhm. parce que xam nga rek affaire yi moom foog nga ko ci boole foog nga ko ci boole Euh, dem ba ñu demoon euh, Sénégal ay at ci ginnaaw ñu gis ne euh, wat fii nii mooy wane dégradé ay cinq 500 la woon xale ay trois cent ñu dox ba jamono di dox yéen association des coiffeurs yu Sénégal ngeen yokk tarif yi. yokk tarif boobu lan moo ko waraloon da ngeen demoon ba gisatu leen seen bopp ci métier bi wala. waaw waaw métier bi dafa nekk métier boo xam ne nii day laaj boo ci nekkee am fu la yóbbu. waaw te xam nga rek mooy loolu affaire bi léegi soo ba ma ne lépp cher lépp cher dara yombatul léegi. wallaahi dara yombatul moo tax ñuy obligé association bi ñu boole ñu ne foog ñu yokk prix wat yi ñuy def au moins dégradé 1000 francs 1500 blague yi 1000 francs 700 mooy mu ndax mu xaw a tane parce que courant bi yombul location yi yombul te da ngay le 5 day fekk gars yi commencé nañ la taxaw parce que ñoom tamit ci la ñuy mën a tedd waaye amuñu lu dul lool ñoom ci la ñuy mën a kii daal voilà loolu mooy problème bi moo tax yow tamit foog nga obligé xam nga. heure fay bu jotee rek nga obligé fay mais am na nooy liggéeyee tamit xam nga di nga bëgg a fay mu tëla waaw dinga bëgg a fay mu tëla parce que mooy loolu affaire bi day tar benn instant nii. tey boo amoon benn conseil booy jox ndaw yi nga xam ne ñu ngi door a dugg ci métier bi parce que yaa leen ci ëpp expérience euh, lan nga leen di wax. waaw ndaw mi ndaw yi nga xam ne ñu ngi doog a dugg ci métier bi nañ ci góorgóorlu rek bëgg ko xale moom jàng métier lu am solo ci moom la. waaw parce que métier moo nekk loo xam ne lii foo dem mun nga ko yóbbaale. boo demoon fi ba États-Unis métier bii nii mooy loolu. waaw day jàll parce que métier noble la fi nga koy gis nii métier noble la parce que da ngay dajeeg façon doomu aadama bu ne da ngay dajeeg kilifa diine da ngay dajeeg kilifa aada comprendre nga façon nit ku ne da nga koy gis. waaw nit tey métier bi dafa nekk loo xam ne kenn mënu ko bàyyi watu kenn mënu ko ñàkk def foog nit di ko def waaw parce que am na milieu yooyu dem doo gis lu dul watu doog a dem comprendre nga comme Cissé tey dagg bi ñuy gis nga affaire mu ngi nice waay gis nga. est-ce que so xolé ci boppu nit yow di nga xam ban wat moko gëna japp waaw waaw waaw lolu mom yalla def nako ko waaw yàlla def na ne tay bo ñëwoon tok di watu rek suma xolé sa coupe waaw suma xolé sa coupe bop rek mën na xam ban wat mo lay japp suma lako waté ko watee la jàpp même boko dul won watu sax suma lako waté rek dina jàll. suñu cameraman bo xolon tay tey bi mom ban wat mo koy japp ndel wala. ah ki rasé ki dang koy dóor balaa rasé bu set wicc. waaw bu set nga koy dóor nga bàyyi ko mu dem bu démé <laughs> jabar ji di ko koŋ ki raasi bu set wicc nga koy defal kii mooy loolu moom macha allah macha allah tey ñu ngi ci dernière ligne droite bu émission bi tey boo amoon euh, lenn loo xam ne boo nga ko waxte laaju malaka euh, mbokku internet yi waaw xanaa di sant rek di leen sant bu baax a baax a baax vraiment kontaan naa waaw di sant sama yaay gërëm sama papa di sant ñëpp clients yi maa ngi leen di sant bu baax a baax wallaahi am na clients yi fu ne la ñuy jóge di ñëw ba ci ñi may réparel tëndës ñi may wat grand bi may wat nii rek caaro géej la jógee ñaata salon la rombo ñaata salon ñaata salon la romb fii ba caaro géej xam naa fu yëpp sama diiwaan la ah xam naa ñaata salon la romb pour ñëw fii waaw kon nag xam nga kii moom ku ci mel ni moom tey aw ma fayam ak keneen ak keneen. nga am na ñoo xam dañuy toog seen kër woo la nga déplacé wu dem wat waaw waaw loolu am na loolu am na am na ay clients yoo xam ne damay dem seen kër di leen wot am na kilifa yoo xam ne damay dem di leen wot ku ci mel ne Cheikhouna Mbacke maa ngi koy nuyu di ko bëggee bu bëree bëri di ko ziar ak euh, Moulay Moulay Dabaax doomu sëñ Abib waa Tiwaawoon la boo jéggee tali bi foofu la nekk kooku damay dem di ko wati waaw moom tamit maa ngi koy nuyu maa ngi koy nuyu bu bëree bëri di ko ziar di ko ziar bu bëree bëree bëri macha allah. macha la euh, jeexagul ah, mbokk ay natt dañuy laaj ci clients yi nga xam ne fekk nañ leen fii ñu sànni ci ay kàddu. waaw ba tey euh, mbokk internet yi ñu ngi fii ci salon Demba fekk fii kenn ci ay client am euh, ñu laaj ko rek mu sànni ci ay kàddu rek sëñ bi ñu ngi lay nuyu. ah ñu ngi leen di fay bu baax. Mor Talla Cissé. Mor Talla Cissé. Mhm. tey ñu ñëw euh, ci émission waar bi seet si ki nga xam ne moom mooy Demba. Mhm. ñu fekk na fii yaakaar naa ni client am la. Mhm. boo ñu doon indil lay témoignage ci Demba la lay. waaw ñu ngi sant yàlla bu baax di gërëm yorante bi di am contentement ci laaj boobu parce que Demba ku baax la moy sunu coiffeur wax deug yalla man na ni buñu wato fanen furul fi mom duñ gis sunu bop ci wat bi ko waaw te ku baax la ku yaatu la wax deug yalla ku meuna a accueillir client ku man li muy def diko di yalla rek bo yalla sam ko ar ko euh, mussel ko muccel ko te gën ko dolel gën ko kàttanal ba limi liggé mu am ci lu gëna kawé kawe njottam suñu sunu borom dimbali ko ci baax yow depuis depuis combien depuis combien de temps yaa ngi watu ci démb. waaw démb na ma ngi xamee woon poste tiaro yi. ki euh étoile coiffure wala ah. ko xamee woon boo may da dem Pikine souvent mu da ñëw wacc poste tiaro yi dem Pikine rek damay jaar fofu ci mom ci la ko xamé won ya lay dox ba ma ñew fekkaat ko fii ñu bokk même koñ bi ma xamni lama da dem diko ko mom moom na ma fi ni waaw. ba nga commencé watu ci moom ba léegi gisoo ci lenn lu la naqari. non non gisuñu ci lenn lu ñu naqari wax dëgg yàlla waxuma la dara sax waaye waxuma la wat bi rek mais jàmm jim lay may rek boo fi ñëwee moom souvent mooy tax saa yu ñëwee ci place da nga fekk ay nit ñu bari te ñëpp daanaka duñ ñëw watu si ñëw toog waxtaana leen fii indi béggee kontaanante yaa ma gën a xam. waaw ah, maa ngi leen di fay bu baax euh, Modou waaw ñu fekk la fii ci salon demb ngay watu euh, o bi nice na de. Hmm, merci beaucoup merci merci merci. waaw fii de moom bu dinaa sawar a wax ci Demba parce que Demba moom wax dëgg yàlla sama waay la sama frère la mën naa nii parce que bi ma dalee watu kii ba léegi moom dama jóge caaru géej laa jóge ñëw di watu si fii ci moom waaw. parce que loolu yëpp moom boo gisee ñu di ko topp noonu moom moo ñu ko wan parce que am na nu mu doon doxalee duñ ko duñ ko topp si ba fii. waaw bëgg na liggéeyam gëm na liggéey bi respecté na ko respecté na client yi tamit. macha allah kon xam naa di ko ñaanal rek suñu borom yokk xéwal yi bu baax a baax a baax a baax parce que moom fonk na client fonk na liggéeyam respecté na ko. waaw ba tey seen biir émission waar bi ñu nekkaat fi beneen xaritu Demba di client am tamit koo xam ne yàgg nañ lool ñu bàyyi ko mu présenté wu. Euh, sëñ ñu ngi lay nuyu. fay ça va na def sant yàlla bu baax élagement Hadj laa tudd. tey ñu ñëw seet si Demba ci émission waar wi fekk la fii nii euh, yàgg Demba depuis kañ ngeen xamante. oui Demba depuis yàgg na après. 92 ans dañu xamante ma moom. oui mais Demba xam naa ne daal xale bu am jom la ku nangoo liggéey la te ku respecté liggéeyam la te aussi ñoo jàngandoo métier aussi tamit poste caaro yi oui boobu tamit yàgg na te grand bi ko jàngal métier aussi tamit ku baax la Tidiane oui muy grand bu am jom grand bu am fulla bu am fayda aussi tamit ci liggéey lañ ko xamee quoi waaw. Euh, depuis ba mu duggee ci métier bii nii euh, yow yaakaar naa ni yaa ngi doon gungeek moom di àndandoo moom di wotoog moom lan nga gis ci moom depuis ba mu duggee ci métier bi ba léegi. waaw li ma bopp ba tey li ma gis ci moom je pense que ni gis naa ni moom xam naa ne loolu avantage am la parce que mu ngi ciy dimbali ay famem ba ma koy xam bopp ba tey amuloon dara quoi amuloon jabar amuloon doom mais je pense que ni ba ma gisee ci liggéey bopp ba tey mu ngi ciy obligé mi ngi ci am dara quoi waaw ci la amee soxna. waaw ba am ci ay tarangam am ci ay bien ba li mu yor ni tey mu yor ko ci quoi waaw. boo amoon benn conseil boo koy jox euh, ngir mu gën a góorlu loo koy wax. waaw dama koy gën a wax mu gën a góorgóorlu rek te gën a fonk ay client am te gën a yokk loxoom tamit parce que gën a yokk loxoom sax mais dañ koy gën a ñaax rek pour mu gëna a yokk loxoom parce que àdduna bi tamit loo fi gis ak ñaax la quoi waaw ñun dañoo ñaax ba ñu yegg si fi ñu yegg si nii waaw mais daal vraiment borom jom la te te aussi tamit kuy kuy kuy góorgóorlu la te kuy góorgóorlu yaakaar naa dañ ko wara a jappalé wa lool dal daal gën naa xam ci mom wa nañ ko gëna a ko internet ba ñu ngi ci en émission war wi ah, ci biir salon wu Demba euh, fekkat fi tamit benen client am tamit euh, mu ngi ni señ bi ñu ngi lay nuyu euh, ma leen di fay waaw ma leen di fay baax baax man la pap Ndour di client Demba di xaritam waaw di gaynam waaw di sama frère sama lepp la quoi waaw may faral di wato fi lu bari Yak Demba kañ ngeen xamanté depuis 2004 waaw depuis 2004 ñoo doon laa doon ñëw foofu fekk ko boobu mu ngi jàng wat foofu la ñu commencé di wat ba fi ñu toll nii quoi waaw ba léegi ci moom la ñu watoo. tey boo amoon benn témoignage boo ñuy mën a apporter ci Demba euh, lan lay doon. waaw nit ku baax la. nit ku yaatu la aussi. ndax yaatal bi mu yaatal rek moo tax ñu ñëwee ñëw fii di fi watoo. boo gisee maa ngi dëkk ba jaxaay fii laa dëkkoon ñoo bokkoon koñ doon ànd. Euh, bi mu mokkalee tamit beru ñu ñu ñu topp ko ànd ak moom ndax li muy def euh, dem nañ ba am habitude bu ñu watul day mel ni watuwuñu waaw vraiment ku baax la waaw nit la koo xam ne mosuñ gis ci moom sikki sàkk wala mu am lu muy kanam gi wala mu ñuy fasal kanamam yooyu yëpp mosuñ ko gis ci moom quoi ndax ku yaatu la ku baax la euh, ku ku gëm li muy def la aussi waaw da ko bëgg ndax métier moo xam ne bëgg na ko trop waaw macha parce que ku que ci métier pendant plus de 18 ans yaakaar naa ni euh, mën ko moo tax nga mën a agsi foofu noonu. macha allah mbokku internet yi ñoko ko tay li lañ leen indiloon seen émission waar wi fii ci Jack Saw euh, Tableau précisément seet ci Demba kuy yëngu ci walum euh, coiffure comme ni ma leen nga waxe ça fait plus de 18 ans mu ci métier bi. nit nak non nga wara mel góor kep kuy yëngu ci secteur informel wara xeb dara té da nga wara respecter say clients ba nga xamné euh cër bobu nga leen di jox ñoom ñoo la koy delloo ba sa ba nga mën a avancer di leen jox dig daje très prochainement di remercier toute l' technique et éditoriale de Sénédiaspora ma di ci caméra bi euh, di leen jox dig daje beneen yoon ñu dem seeti keneen euh, xeebuñu kenaa kuy yëngu même jaaykatu gerte bi sax buñ ko mënee dem seeti dañ koy seeti parce que nit lépp lu muy yëngu am ci dignité am ci ful ak fayda yaakaar naa ne suñu borom di leen ci dimbali di leen jox dig daje euh, te di yi ngeen topp te di di abonné si Sénédiaspora TV activer cloche de bi ngir bépp vidéo bu dugg ngeen mën si jot jërë ngeen jëf